voilà ñolgu naa ñolgoo ñolgu ba kenn xàmmeetu max golo voilà léegi nag am na beneen problème parce que xam ngeen ne nag ñi nga xamante ne ñoom nooy loué kaas nan fi ñaxtu nan mais ñi leen di loué it kenn ëpp leen problème parce que nee nan ciment cher na béton cher na fer suuf metti na te na am na nag loo xam ne wax nanu ko nu topp loolu Sede bon voilà euh, temps yëpp on entend ñu ngi dégg partout ñu ngi koy dégg location bi cher na location bi cher na mais il faut mu cher hein il faut que les gens comprennent il faut que les gens comprennent xool ma sama bâtiment bi hein kan moo ma jox xaalis bu ma ko tabaxee xoolal sama kan moo ma dimbalee ci xaalis xam ngeen fan laa jëlee sama xaalis mais bu fekkee dañu bëgg état bi. régulariser pour ñu wàññi location bi c'est pas à nous de le faire ciment wàññi wuñu ko béton wàññi wuñu ko suuf wàññi wuñu ko ferraille wàññi wu ko même fil de fer bi kilo bi ñaata la presque un million cinq cent ah avec ça ñu am ko ngeen bogg mais quand même bis bu état bi xëyee wàcci matériel de construction yi mais bu boobaa jarul sax ñu ñuy wax dara ñun ñooy xam ne ay juli julit lañu ñun ñooy xam ne ay la lañu ñu wàññi ko et puis am nañ prix étranger am nañ ay prix étranger yéen waa TFM am ngeen fa yowoo ah il vient d'Abidjan mais prix étranger lañ ko defal il loge chez moi hein mais donc il faudra que ngeen comprendre comme sa matériaux de construction bu ñu ko wàññee et puis wàññi suñu location mais c'est simple que ça voilà voilà ñaata laa leb ci banque bi je dois combien à la banque et vous voulez que ma jël sama xaalis mel ni koy sandi je le ferai pas je finis appartement trois cent mille ku bëgg a jël ku bëggul bàyyi voilà oh voilà Sénégal a ngi yéen waa bitim réew bu fekkee xàmme ngeen koñ bi fii nii fii fii fii voilà ak ah, fii nii c'est juste pour présenter Sénégal quoi étranger yi surtout ñu gën a xam Dakar fii c'est Khombole voilà Bamba est là Bargny Rufisque Yeumbeul Almadies allez <laughs> mu mel ni Bambey soppi na de li ma fa gis ci taar ak fleur Abdou Aziz eh, dañ leen di gërëm rek tonton Adé si la muñal eh, dal di nag jeexale li nga xam ni Abdou Aziz moom lay bañ a dégg mbokk yi koor gi soreetul xam naa le 20 jàpp 21 ñu um koor solo ak ngëneel yi ci koor nag Aziz ndax boo defee benn ñu fay la ca fukk kooku jar na woor nag de. waaw asan euh, bu fekkoon ni boo deful dara kenn du la def dara mais man xam naa ci ñi ñooñu laay bokk mais Assane li ma jaaxal ci koor mooy. man bu nu xëyee man daal njël laay tàmbalee sonn ba keroog timis di jot. Ah, yow foog naan doo mas a def grève de la faim kon. non euh, xalaatuma ko Assane <laughs> man xalaatuma kuy wax grève de la faim sax man fu ma masa bokk rek uh-huh. xam nga maag yow it ñooyam parce que yow bu fekkoon ni ndox dina la may nga naan ba midi ah. yow di nga mën a war ñaari fan ba fii de yow yaa wax yaa avoué euh, may wax xale yi seetaan yeewu leen bu leen ko topp ne misaal euh, nero yu kaay bàyyi leen ko rek ak ragal xiifam koor ak ay ngëneelam mbokk yi nin ko waxee danu ci ànd ak imam Sakho Ndaw bu Grande Mosquée Nord unité 10 Parcelles Assainies ci ngëneel yi waaye comportement bi ci jullit bi war a am ci jamonoy koor imam Sakho Ndaw soxna su benn cuubu alhamdulilahi ala rasulillahi subhaana rabbi asri li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ajuma ji daanaka xam nga ba cay topp daanaka lay nekk ci koor gi moo tax ma tànn thème boo xam ne pour pare waajal koor gi jullit bi nga xam ne mu ngi waaja dugg ci weeru tedd wi mooy saaru ramadaan allazi unsila fil quraan léegi pour de fàttali jullit yi weer wu teet weer wi ni mu amee solo ñi leen ay fàttali weer wi jëf yi nga xam ne léegi ah, bépp jëf boo xam ne doomu aadama dana ko ci jëf buñ ko daan fay benn dañ koy ful fay ko masalan ni mu tippali ko fay ko fula ah, du diis maanaam bu fi benn ful ko loolu moo tax mais ma jël thème boobu pour fàttali jullit yi ñu xam euh, gëddu weer woowu nga xam mooy weeru koor mooy ñëw si ñu waajal ko ndax mooy weeru koor bi nga xam ne ci la alquran wàcc mooy weer bi nga xam ne ci la julli yi njëkk a gañee ci badar mooy weer bi nga xam ne ci la jullit bi ci la war a war a préparé man cee joxe ñam ci weer bi muy weeru miskin yi ñu ñàkk ñi ak ñi nga xam ne wuy xaajo yi ak ñi nga xam ne seen jëkkër dafa te dañoo faatu mooy ñu tuddee aramil ak ñi nga xam ne seen way jur yi dañu faatu te ñuy ay xale mooy ay jirim ak ak euh, koor gi nga woor euh, fas xëy na nag bàyyi lépp loo xam ne léegi lu ñuy tere la loolu dafa war sax ci lu dul koor rawatina far koor encore ngay jël thème yi nga xam ne ñu ngi koy jël da ko waxtaanee loo xam ne day yàq daf la yàqal maanaam koor duhut bàyyi lekk bàyyi naan rek na nga bàyyi encore waxi caaxaan na nga bàyyi de toog ci yenn grand place yi na nga bàyyi yenn génn yi ngay génn ak ah, yenn colaay yi itam ci xale yi ñoom itam ñu bàyyi ko ci koor gi dañ ko war a bàyyi sax waaye rawatina koor ñaari weer yi nga xam ne mooy passé mooy weeru rajab bi passé ak weer bi nga xam ne ci lañ nekk nii nga xam ne daanaka moom ngay jeex si ñaari weer yooyu weeru rajab dafa bokk ci weer yi nga xam ne mooy weeru borom bi tabaraka wa taala dafa baax a woor ndax yonent bi daf ko daan def te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royukaay ndax walakum fi rasulillahi uswatun xasana lañ wax te mooy suñu royukaay te lépp lu mu daan def déglee ko loola war nañ caa weer wi muy weeru euh, Shaaban mooy weer wi moom itam dañ bëggoon euh, bokk na ci nga xam ne sunna la ñu woor genn wàll gi mooy nisfu nisfu maanaam ñu woor ku ci mën a woor daal xool si sa kem kattan ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan woor te mooy suñu royuwaay loolu itam moo tax ñu ñu bàyyi xel weer wi ñëw ah, bàyyi xel jëf yu baax yi nga xam ne léegi ah, ci biir koor gi dañ koy ful su ko defee yooyu buñ ko bàyyee xel bàyyi xel encore ne ah, nañu fàttali koor gi daf li lay fàttali ñu ñàkk ñi ak ñi nga xam ne moo jot seen loxo jotul seen gannaaw ñu leen ay fàttali suñ mosee koo xoor ba ngoon jot ñu mos xiif ni mel ak mar ni mel te am nañ ndox am nañ lekk waaye ñu xam ne léegi xam ne doomu aadama yoo xam ne ñoo ñoom doomu bi euh, doomu aadama lañ te gis nga lii ci lañuy ñuy lekk du koor gi rek ñoom xëy na sax koor gi rek lañ ko def waaye ñii euh, euh, fukki weer ñaar yëpp ci lii dañoo dund ñuy leen fàttaliku su ko defee mën cee jaamu yàlla ci waaw ñii war a woor war na ñoo xam dëggëddu weer wi su ko defee léegi ku weer wi itam du ñàkk lekk ñàkk a naan rek. il faut ñu boole ci dégg nga lépp lu yàlla yàllay tare ñu daal di bàyyi ko moo xam wax la wala jëf la wala euh, euh, doxalin la loolu lu war la ci képp kuy woor ndax koor du ñàkk lekk ñàkk loolu ci la bokk waaye bul de wax wax yoo xam ne baaxul bul de saaga ndax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na boo xooree ba ba bëccëg nit saaga la ko man dama woor na ko man bu la saaga na ko man dama woor kon loolu nañ ko bàyyi xel xam ne yooyu yenn yooyu day yàq koor que lépp lu yàq sa koor war nga koo daw ni ni nga war a tënkoo ci euh, tënku yi nga xam ne moom la sariya euh, l'islam jàngale loolu jullit bi nga xam ne gëm na yàlla dëgg def ci war a continuer diiru dundam warul koor gi rek mu daal de euh, bàyyi daal di ne koor gi jeex na ndax loolu nag ni ñu bëri dañ koy def ñu ne nii bés bu ñuy bu ñuy um koor gi fii doo fi doo fi mën a julli day fees ba ca biti waaye bu ñu demee quinze jours quinze jours rek daanaka ñaari sàppe la ñu xam loolu la baaxul baaxul ci biir jullit loolu day wane seen gëm yàlla gu néew doole Imam Sakho Ndaw ñu koy ziar bu baax di rafetlu àndam ak euh, TFM di ziar waa Parcelles Assainies ak yéen ñi euh, yeewandoor woon ak ñun ni mu ko waxee rek euh, diine ji moom day yokk xëy na ci jamonoy koor gi yokku góorgóorlu gi waaye doo ñëw di julli bu nu waree nga daal di lem si jaada ba bu beneen loolee du ay defalin ci xam naa ne Aziz tricher sax ci kanamu alkaati yombul waxuma la ak borom bi la daal di sàkk gën la jege sa xol n'est-ce pas ñu baax tricher gi. ñu gi te def li nga xam ni moom la yàlla digle donte ginnaaw pay gaay ëpp solo. njëriñ la nga ca ginnaaw coono noonu la ko wolof yi waxee Mado maa ngi lay gërëm. <laughs> ñu tàggoog suñu mbokk yi. waaw xanaa di fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi naan leen rek ku ci mënul supporter cuuraay bu ne mel mun ngay jël li nga xamante ne moo di parfum bi. Mhm. di fonk nag xeet bu neex ndax vraiment day guddal fan. Mhm. waaye nag tonton nga may ma rek ma remercier ki di euh, euh, madame Lo tataangoon ne ndax jàpp na bu baax quand même ci tournage bi. Ah. merci ak waa Liberté 6 aussi. jërëjëf euh, Madeleine Diaw. sëñ bi Thiam ñu ngi lay gërëm bu baax ma fàttali ni moom la ñu àndaloon maam Demba Thiam di géographe euh, chercheur euh, ci wàllu inondation sëñ Thiam ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf. jërëjëf Thiam Abdoul Aziz kon xam naa ñu tàggoog mbokk yi. waa ñu tàggoog mbokk yi di leen euh, kenn yekkendal jàmm ak wërsëg wu leen yàlla may ñu indi ko seen njaboot di wax rek ma doone ko ñu ngi koy sant ci li mu indi bu mayee El Hadj benn man it na ma may benn. <laughs> Euh, Aziz euh, foog naan nag yow fa ñuy mujjee mooy ca kanamu conseil constitutionnel <laughs> ñu gërëm toute l' équipe de yeewu leen di leen ñaanal mbokk yi kenn dalu jàmm ba àjjuma incha allah. Votre margarine Adja, Chocopin et Kango vous ont offert Yeewu Leen